moo wax leen ne marché bi approvisionné nañ ko correctement hmm. ci xar hmm. ci diwlin hmm. ci pompiteer at ci soble tabaski nag mënul génn xar mënul génn diwlin mënul génn pompiteer ak soble ragal naa ne denrée yooyu moo ëpp luñ ciy utiliser ci période tabaski. ah déet séeréer yi ñu ñuy lekk ñoom. macaroni. <laughs> ak xanaa xar bi doyul. <laughs> parce que man naa ne bu xar doyee. mburu sax du ko laal. dama daan bàyyi noonu rek. donc fi mu toll nii bu ñëwee ci xar yi. Hmm. Euh, tabaski nag dafa doy waar. ndax xar dañ koy jëlee bitim réew. Hmm. muy Mali at Mauritanie. dañ koy juddulee fii itam. Hmm. ñett yëpp. ut nañ ko ba ñu ngi ñëw waaye ñëw bi nag na continuer ba ñu ne suba la tabaski bu amee dagg-dagg ci approvisionnement bi mën na am mu am njeexital ci stock waaye li nu gis ko ba pay tey bi may ñëw kamiyon yaa ngi dugg ndakaaru mm-hmm. te bu ma wëree ndakaaru at li ko wër naam xaru yar yi ñoo ëppagum. Mhm. te dafa cher parce que liñ leen di xont tax. Mhm. te dañ ne tabaski coggal ndax coggal suma classe gi moom lañ mën a jot. coggal nag am na ay point yoo xam ne boo fa demee daa ko fekk boo demee tey Rufisque am na fa. boo demee daral ba am na fa boo demee ca booru stade ba ci roq ba am na fa. Mhm. mais nag dañ ne tabaski coggal. approvisionnement bi normal na boo ko comparé ak l'année passée à pareille époque hmm. parce que loolu la ñuy xaymaa mun nañu wax ne surplus sax am na ci ruq-ruqaat yu bëri ak ci Ndakaar mais man mi nga xam ne dama sob ba ne damay défendre waaye jëfandiku yi damay wax toujours ministre élevage mu waxtaan ak opérateurs yi nga xam ne ñoom dañu am doole ñu def li tubaab du waxee une bonne régulation régulation mooy lan tey jii ndakaaru bu amee ba am surplus te nga xool koldaa benn consomateur téewut buum te yor xaalisam su ma xol du neex yàlla xam na ne suma xar mi bu ma ko tiimee duma xam lu may saf ndax dama naan kii de man am naa te moom amul hmm. te waroon naa am donc may invité d'ailleurs euh, secrétaire général bi nga xam ne moo nekk élevage moom nekkoon na directeur du commerce intérieur xam na régulation te xam naa ne mu ngi koy jëfandikoo. Mm-hmm. ndax ba fa nekkee ba léegi vraiment ñu ngi veiller avec les opérateurs que ñuy seet point yi nga xam ne euh, di ko suivre ba ragal naa ne Sénégal ñëpp danañ am xar te ku ci nekk nag nga xam ne du xar rek ki néew néew doole ba léegi yoon. may na ko mu tabaskee bëy parce que nit ñi dañuy def focus sur xar rek mm-hmm. waaye nag yàlla moom ubbi tëjut bunt tëj fenêtre wàcc rido waaw